kon àddina damay wax ni àddina dafa laaj yet te yett yooyu lenn lu ci nekk luñ luñ ci jéemul lenn kanam la jëm ñàkk gu borom nu ngi wut a liggéey kanam la jëm jàngoro ju borom nu wula faj kanam la jëm ñàkk xam te nu wulaa laaj kanam la jëm as yi ci àddina yaari asa ci am solo den as jumu amul solo as tafur la as gor as ndox feeñal na sobe waaye sétalu ko as xam-xam bu borom toogul noppiwul dina feeñalu xamadeem te du ko foog werante bu tàbbee ci penc ñeent ko fa indi ku ñu yarul jàngaluñu ko kiñ jàngal te yareesu ko boroom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a feeñ ak ku yaroo ci daara ju amul daa daar ju amul daa mënees ne caa génnaale ay pexe waaye kenn du ca génne gi kon jaamu yàlla nu ngoo liggéey ku def sa bopp ku bàyyi sa bopp àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala koo bëgg a xañ wërsëg ak xam xel loo ci yóbbu fu ñu koy nawee boo ñàkkee fayda duutu yokk wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci ëpp si say bokk te doo leen ci dimbali su bokk nga yàqoo yaa ko jiite kon wërsëg jëlul du mooy say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi barsàq tuddul barsàq bersam sàq la kenn ku nekk da nga yegg xetsam sàq yor sa loxo loo ca fekk yaa ko liggéey juboo ba juboo jeexit juboo fi jëf ci baax a ci gën keneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog waaye boo juboo sa jëf fu ñu la tëral mu tëdd fa 别这样。